xeex bu ñu xeex heure bi foogoon nañ ni affaire bi raxas nañ gaay raxas nañ gaay ndox ca xaj mais méttit boobu noonu góom bu góom boo xam ne fajoogul wéragul ñuy gis gars yi nga xam ne dañ leen doon xeex ñu toogaat foofu fu ñu toogoon loolu mooy métti sénégalais te loolu man comprendre naa seen frustration la quand même parce que nit doo dem fenn nit nga fekk fa ab noon mu mu rey sa frère nga xeex a xeex xeex ba jëlee fa ponkal pour mu génne fa criminel ba ba léegi nga fay dem fekk fa criminel bi <laughs> loolu tamit loolu neexul loolu bu sénégalais mënul muñ sax ba defu naan mën nañ def euh, vendetta mën nañ mën nañ mën nañ def euh, le karma mën nañ réplique xëpp ci kaani parce que ki rey sa frère wala ku rey sa nangam toogaat ci nguur yow da ngaa da ngaa changé woon affaire ba changé mais da ngaa changé woon pour mu changé mais boo changé c'est vrai que bon euh, c'est normal si suñu culture la bokk Sénégal dafa xaw a yàkkam ci mais <laughs> dinañ leen comprendre parce que neexul ci xol Mouhamadou Lamine Massaly ba léegi ci passeport diplomatique am lay voyager Mouhamadou Lamine Massaly ba léegi PCA la xam naa junni PCA amul benn PCA bu fi wàcc te PCA da ñoo xeex a xeex a xeex directeur général yi dañ ñoo xeex a xeex a xeex a bokkoon ci ñiy rey gaay ñii ay nervi lañ jël ñii jël ay nervi duuru ko aéroport boobu boo fa demee mi ngi xeeñ xunnu ak APR mais changé wuñ kenn duuru ko bu mu ñëwee dafa teg ba mu fees jàll ak ay nitam buñ ci paree euh, jéey beneen jéey bi moom moo fa ñëwoon duy fa ba mu neex ay nitam mais ñooñu ñoo doon saaga fii gars yi di xeex ak ñun ñoom ñoo ne woon nervi bi duuru ka doon jël di leen yónni jigéen soor ñuy xeex ak Sonko naan dañuy taal këram. et cetera et cetera ñoo nekk ñoo nekk ci administration fees bi dàll. léegi yow c'est kii la rey kii la bu fekkee moom moo fa toog ba léegi nga romb kii rey say frère kii rey say sœur mi ngi toog fu mu toog ba léegi bougégul meetar ay bés di fi am ay bés ñuy tëb ay bés yoo xam ne war nañ mën a même bu dee changé benn changé wuñu kenn gars yi toog di encaissé ba léegi benn masali PCA ak yeneen PCA ba ci samay am naa mbokk PCA boo xam ne ba léegi fa te xeex nañu façon xeex bu ne xeex bu dul xeexu dëmm koo koo xeex nañu Massi la yoroon fetal bi fii Massi la doon saaga gaa yi doo wax te moo ci gën a ndaw am na ñeneen am na ñoo xam ne ay DG lañ ba jóg jéegi jéegi jóg ñëpp ko xam jéegi jóg fu mu taxawee jigéen jooju nekk si ndar fu mu taxawee ci tele day saaga Sonko lu mu ko waxul ci lu musum ñaaw amul mais jéegi jóg moo nekk directrice ba léegi fu mu toog ñeneen ak ñeneen loolu mu fépp foo dem nga justice ba ñoo fa toog administration ba ña nga fa fekk tell douze ans ñu miine leen ci place yëpp ñu ngi fa fees tepp nekk ci ministère yi ba léegi ba léegi ñu ngi ci ministère yi ñoo nekk ci secrétaire général bi waa waa APR la nga dem fekk directeur général ba waa APR la nga dem fekk euh, PCA ba waa APR la et cetera ñoo ñëpp ñi ba léegi ñu ngi fa toog ah ñu ngi fa toog ñi fa toog di di nekk ci lu ñu ne di di ba léegi ñu ngi fayeeku ba léegi ñu ngi fayeeku amul dara lu changé dara ba léegi ñu ngi fayeeku ñoo ñoo nekk fépp mais balebi dafa war a dafa war a am bale bi dafa war a am ñoo nekk ci ambassades yi ñoo nekk ci chancellerie yi ñoo nekk ci consulat yi même bu dee benn la ñuy changé sax benn par benn par jour mais gars yi heure bi mais Abdoulaye Wade bu mu ñëwee heure bi ñu waa waa Abdou Diouf yi kat quasi totalité bi yëpp Abdoulaye Wade dem leen ngeen xool bu mu defee trois mois ou deux mois ci gouvernement mais tibb na waa PS yëpp tuur ca xaj mais Macky Sall bu mu ñëwee deux mois trois mois tibb na quasi totalité yu Abdoulaye yëpp dóor ca xaj donc normalement affaire yi waroon na mun a gën a gaaw c'est très lent nag c'est très très très yéex na torop ndax ay fan yu ñuy tëb ay fan yu dul wàcce gars yi gars yi toog fa waa PCA ya gars yi amoon passeport diplomatique yi ba léegi ñu ngi ko yor ñu ngi voyagé passeport diplomatique yi ñu ngi naaw di dem fu leen neex di fayeeku suñu salaire ça va <laughs> à la limite c'est c'est compliqué loolu moom moo dal ci ci ci ci moo dal sama sama sama gouvernement moo dal sama président bu mu demee pari bu mu demee pari parce que ambassade boobu noonu ñoo ñu nekk foofu noonu mais waa Macky Sall moo tax ñu saboté ko dem jël benn ñaaxarañ jox ko programme bi mu topp ci gars yi di saboté fu fu fu fu fu président Diomaye dem fekk ko fa mu taxaw di di di yor portable am di saboté bam ca paree gis nga rës cër gu mu jox cër bu mu jox euh, Waly Seck sax joxu ko joxu ko euh, Diomaye Faye président Diomaye Faye ma ba mu paree sànni na fa lépp dam dem topp ji Waly Seck ma nga topp Waly Seck donc respecté wul sax suñu président respecté wu lu lu ko lu ko taxoon a jóg moom mooy juste toroxal suñu président toroxal pastefiens yi wan leen mun leen dara ci ñun yéen dara changé wu fii gis nga ba léegi maa ngi snap loolu rek moo ko taxoon jóg mu dagg biem daw dem foofu waroon dem Milan mu demul Milan mu mu mu jóge foofu noonu dem juste pour topp suñu président pour wan ni seen dara baaxu fi bu leen nax seen bopp seen dara baaxul maa ngi nii di nuyu seen président maa ngi nii à deux pas di wax ak moom maa ngi nii à deux pas di wax lu ma neex di nangam pour wan loolu yëpp faay la lay woon faay que yaa faay bu dul faay amul leneen yaa faay parce que kooku di snap du ministre du député du maire du consul du nekk ci chancellerie bi liggéeyul dara dara dara chômeur la bu dee chômeur boobu moo dem ba taxaw à deux pas wu euh, euh, euh, le président Diomaye di ko joxe loxo ak wax ak moom mooy yaa faay qu'on le veuille ou non yaa faay faay bi nag kan moo ko def moom mooy faay bi ku ko def moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci chancellerie bi ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk ci euh, ambassade bi ci ambassade bi waa APR ñooy saboté ñooy saboté liggéey bi ñoom ñooy saboté liggéey bi complètement bousiller affaire bi wala li lu amoon valeur ñu koy jéem a wàcce pour wane ni y a valeur amul amul sens donc loolu le président Diomaye daf ci war a taxaw loolu Ousmane Sonko da ci war a taxaw gars yi dañu war a taxaw pour def à que déjà ñii ñii dañu leen fi war a génne dañ leen fi war a génnee dañ leen fi war a génne dañ leen fi war a jëlee parce que dañu sonal gars dañu sonal affaire yi lekk nañ suñu xaalis rey suñu rakk yi tiire ñu ay bal gaañ ñu tëj ñu fenal ñu tëj tëj aéroport bi jàpp ay nit fiché leen ñu ñëw ñu dugal leen ci kaso yi trop mais c'est que lu ñu daj dafa yàgg te dafa metti ñii vraiment bëggatuñ leen gis xeex bi ñu xeex fii yëpp c'était pas pour bugguñu bugguñu woon sax toog ñaari weer di gisaat waa APR yi vraiment ñi lu ñu def mérité wuñ toogaat fii ak ñun di lekkaat suñu salaire mérité wuñ ko mérité toogaat fii di lekkaat suñu salaire mérité wuñ toogaat deux mois trois mois di warax suñu salaire mérité wuñ toogaat ci suñu place mérité wuñ yor suñu passeport diplomatique di ko voyager c'est pas normal fépp problème bi fépp la problème bi fépp la il faut gars yi taxaw changer li fi nekk aéroport beeg port beeg ñi ngi fépp aéroport bi bo demal aéroport demal dem leen aéroport ngeen xool publicité yëpp Macky Sall la fa ne publicité terre bi Macky Sall la nga fa ne publicité terre bi mooy daw foofu ak photo Macky Sall publicité BRT bi mi ngi ci aéroport bi di daw H24 Macky Sall la fa ne mais foo tourné aéroport Macky Sall la ngi daw panneau publicitaire yëpp Macky Sall la fa ne même teen bu ñu gas sax Macky Sall inauguré ko mais mi ngi aéroport lépp ñu li li fa nekk lépp enseigne yu nekk yëpp di daw déroulé aéroport Macky Sall la fa ne nañ nañu dimbale nag changé ñu lii quoi nañu dimbale changé ñu lii lillaahi wa rasuuli pour xol yi mun a dal sax xol yi xol yi mun a dal tuuti parce que ñun bugguñu yeewu di gisaat suñu assassin yi toog fu ñu toogoon bugguñu yeewu gis ñu ñu fenaloon toog fu ñu toogoon ñu yeewu di gis ñi tëjoon xale yi toog fu ñu toogoon di encaisser di encaisser suñu salaire léegi sax ñoom dañuy wax naan ñun mënuñu leen changer parce que ñun am amuñu amuñu amuñu ñu leen di changer maa maa ngi ko ci waa APR yi naan de du du yàkkamti c'est-à-dire da ngeen ñoo xeex mais amu leen sax mënu leen ñu sax changé parce que amu leen amu maanaam amu leen ay ay cadre yu yu ñu mën a remplacer. <laughs> même pas deux jours loolu la ma waa APR wax na ma mënu leen ñu changé di ngeen ñuy a changé parce que yéen amu leen boo leen amoon ñu ñuy remplacer kon remplacer ngeen ñu amu ñu ngeen remplacer seen seen i njiit ñu ñi ngi wër ñu ñuy remplacer mënuñu ko. ñoom ñu ngi koy lay boobu ñu ngi ko téye ne ñun amuñu ñu leen mën a remplacer ñoom loolu moo tax boobu ba léegi ñun daanu nañ ñoom daanu nañ ñun jël nañ nguur gi mais mënuñu leen remplacer parce que ñun amuñu ñu leen remplacer et pourtant lu ñu yor ci ñu leen di remplacer ñu ngi fii toog di xaar amul diplôme bu benn nit wu APR am te ñu ko amul école boo dem ñu dàqoon jàng ci Sénégal ci mond bi ay waa Pastef lañ ñu ëpp xam-xam ci monde bi élite intellectuel bi ay waa Pastef lañ muy Sénégal di bitim réew jàng nañ ci école yi gën a kawe ci monde bi ñu ngi fii toog di xaar seen i diplôme di liggéeyal tubaab yi kenn woowu leen ñu ngi toog di xaar te Sonko xam na leen Diomaye xam na leen ñoom ñoo xam nañ leen ñu ngi fii di xaar kenn woowu leen je pense citer des centaines de milliers ñu ngi France ak feneen ak feneen mais kenn woowu leen ñu ngi toog ñoom ñi ngi nekk ci lu ñu nekk te xeex bi yëpp dañ koo xeex waa APR yi toog rek nu xujj ne duñ fa jógee jëluñu leen sànni ca bu fekkoon sax defuñu ñu dara sax ñun mën nañ ñoo muñ mais ñoo xam ne ñoo ñu rey fenal ñu sosal ñu tiiñal ñu taqal ñu ah toog fu ñu toog di eggali li ñuy def ñun ñu toog fu ñu toog ñun tamit di galère di leen xool suñu xol yi di chaine. xam ngeen gis patriote yi mais gis benn ñaaxarañ buy taxawaalu foofu wala gis benn euh, euh, Cheikh Cheikh Gadiaga di taxawaalu foofu mais affaire da leen métti ñëpp ko métti lu ñëpp ko métti lu foofu comprendre naa comprendre naa man lañ ma expliqué parce que bu ma laajtee dañ ma xamal ne ma chancellerie bi muy ambassadeur bi muy consul ñoom ñëpp seen doom yi dañuy jànge foofu seen doom yi dañuy jàng foofu donc dañoo escalo scolarisé wu donc dañuy bàyyi ba juillet ñu jëlee leen fa man loolu lañ ma xamal ñoom ñëpp yor nañ këyit buy firnde ni jóge nañ fa mais dañuy xaar ba juillet école yëpp tëj dese na deux semaines école yëpp day tëj ci bitim réew am ñuy def examen ak lépp day tëj parce que am na ñuy jàng ba léegi am na Angleterre di jàng am na France di jàng am na fii di jàng donc juillet c'est sûr école yëpp dina tëj ñoom ñu dem seen yoon mais ñoom ñëpp jox nañ leen kayit comme quoi dañ fay joge loolu moo tax Maguette Seye saboté nii Maguette Seye yor na këyit bu ñu ko won nii da nga fiy jógee juillet moo tax mu saboté ko nii mu ko saboté ci bu bu ñuy recevoir le président Diomaye Faye en France kon ñoom ñëpp xam nañ ni dañ fiy jóge te yor nañ kayit buy wane ni dañ fiy jóge dans deux semaines xam nañ loolu donc seen seen doom yi bu ñu paree rek dañ leen di tëbal ñoom ñëpp dañ leen di tëbal donc côté boobu moom euh, vraiment gouvernement bi am na ci justification justificatif am na ci justificatif parce que ni ñu ko waxee noonu man comprendre comprend très bien bu ma demee jege leen laajte dañ ma ne dans deux semaines ñoom ñëpp nañ fi jóge ñoom ñëpp xam nañ dañ fiy jóge loolu moo tax ñu xaw a saboté France ñu def lu ñu def moo tax ñu def lu ñuy def léegi nag ñi nekk ci tamit ñi nekk ci ci pla yor place yi ba léegi def leen neex di voilà quoi di di di toogaat fu ñu toogoon dañ leen fi war a jëlee te dinañ leen fi jëlee dañu leen fiy jëlee incha allah bu soobee yàlla waaw donc euh, loolu daraay cuune newu ci nag <laughs> daraay cuune newu ci vraiment ki fi nekkoon def lu la neex yow li tax jëlewu ko fa yaa xam lu tax ngay préparé wu xëy na sax musibaam la moom foofu dara cuune amu fa <laughs> vraiment ne amu fa nag voilà cuune amu fa xëy na ki ngay remplacer da ngay préparé wu da nga koy préparé pour mu remplacer ko wala daf wala da nga am lu nga li nga leen di toppee boucler ko pour doog leen fi jëlee et cetera et cetera <laughs> donc yow yow yaa xam say argument man je parle du peuple peuple bi rek ñoo ñoo xaw a yàkkamti yàkkamti bi du dara lu dul ñi ñi leen rey ñi leen gaañ ñooñu la ñuy gis te bëggatuñu leen gis ñooñu ñooy lekkaat seen salaire te bëgguñu lekk seen salaire te am nañ ci droit nit ku nekk da nga koy nangul am. boo demee ci Ousmane Sonko boo waxee am na ay raison yu solide comme ma demee laajte ay affaire ambassades yi luñ ma jox <laughs> la dañ ma xamal comme quoi que ñoom seen élèves seen doom yi dañoo scolarisé wu dañuy xaar ñoom ñëpp jot nañ donc gis nga ñooñu kon ñooñu am nañ argument. peuple bi tamit am na argument parce que peuple bi moom mooy dañu leen gaañ rey leen tiiñal leen taqal leen tëj leen ñi ñi ñu toroxal leen et cetera et lu dul peuple bi buggul lu dul ñu jóge fi donc ku ci nekk rek da koy nangul peuple bi ni ñu taxawee frustré wu am lu leen métti ci ñi leen assassin yi nga xam toog fi ba léegi moo leen métti nguur gi tamit am nañ ay argument yu solide yu taxaw yoo xam ne ñoom ñoom it bëgg nañ xamal gaa yi ñii ñëpp nañ fi jóge mais dafa am benn temps lu ñu war a def wala ñii ñii dañ leen topp parce que du seen jàmm bàyyi nañ leen leen mais bàyyi ñu leen ci sago parce que ñi ngi nekk di boucler seen i dossier doog leen a dàq et cetera et bu ci nekk am na am na argument ma njiit yi am nañ seen i argument yi taxaw yu kenn mënul dindi peuple bi am nañ seeni i argument donc euh, euh, je dis pas que sénégalais du ma mus a wax ne nag sénégalais amuñu patience parce que vraiment am nañ patience patience weesuwul lu ñu def patience weesuwul lu ñu def ñi nga xam ne toog nañ fi boobu ba léegi am na patience mais euh, amul lenn luy wane ay ay mbirum cuune voilà même bu ñu opposé wu sax même kuy opposé wu na nga opposé wu positivement am benn am benn ngëm-ngëm quoi man bugguma man gooma opposition ngay opposé wu nii xam nga opposition bu amul la ngëm-ngëm quoi man man man góomu opposition fen opposition fen góomu parce que bañ nga nit ki rek bu ko sosal ngay fen man góoma fen quoi man maa gëmul fen man comprendre ma ba léegi nan la nit mun a fenee quoi nan la nit di fen nii quoi fen am envie di fen nii xoolal waxuñu la amoo information ngay fen nii parce que danga am envie fen man loolu laa mënul comprendre ci nit nit nii fen nii parce que da ngay jug rek fen opposition suñu opposition léegi nag fen fen da leen a neex fen da leen dañuy toog nii fen nii rek parce dañ bëgg opposé wu rek ñu fen moom la ñuy def ba léegi manipulation lu ñaaxarañ lool loolu yëpp manipulation ñu mel ni koo xam ne dañ ko dugal mu muy ñu Macky euh, Diomaye ko yónni fekk wala Diomaye la àndal manipulation fen nit mënu ci am ndam yàlla du musa musa musa toroxal dëgg jiital fen donc kuy fen moom doo am ndam moo tax opposition bi gisaguma ko fi sax opposition amagu fi parce que ñi fi nekk moom ay fenkat kese ak manipulateur manipulateur manteur ñoo fi ne ñoo nekk ci presse bi ñooy taxawaalu ci média yi ñoo nekk ci internet bi APR association des prostituées de la république fen rek fen rek fen ak sos manipulation loolu moom mënu fi jëlee kenn kenn kenn ndax fen moo leen daanee da ngeen ba il faut ngeen def réunion waa APR il faut ngeen def réunion toog ngeen waxtaan seen biir ngeen xool lu leen daane fen kese moo leen daane ak manipuler fen ngeen jàpp nit yi tuddee leen ay terroriste jàpp nit yi tuddee leen ay reykatu nit jàpp nit yi leen ay force spéciale foog ni yéen a téegal gaynde gi jàpp nit yi tuddee leen ay lu ne mais xool ni ngeen daanoo fen moo leen daane ak manipulation billaahi boo leen bàyyee fen ak manipulation génn ci <laughs> boo leen bés leen bàyyee yéen association des prostituées de la république APR bés boo leen bàyyee fen ak manipulation ak transformer ay wax doo billaahi boo leen ko bàyyiwul doo leen mus a toogaat seen giiru dund seen giiru dund waaw parce que sénégalais ñoo leen gën a yeewu te da ngeen foog ni mun ngeen leen manipuler ñoo leen gën a yeewu fuuf manipulation du yàgg fen fenn la dul yàgg lu fen fen teel a xëy dëgg bi ti weesu ko balaa ngoon you loolu la wax lu fen fen teel a xëy dëgg bi ti weesu ko balaa ngoon li ngeen fi fen douze ans ngeen fen ci benn bëccëg lañ leen fi jëlee douze ans ngeen fen douze ans ngeen di manipuler daanu ngeen daanu bu ñaawaay daanu bu daanu bu salte waaw ba léegi mënu leen jóg continuer leen di fende <laughs> ngeen xool ba xam benn donju mango sax doo leen ko fi doo leen ko fi gagné kenn amatul ci yéen confiance ndax fen continuer leen nii ah da leen fen rek <laughs> da leen continuer leen di fen a ma di dagg vidéo fen fii kàcc manipuler <laughs> boo leen ci gagné ma xam ni ma xam ni yàlla amul da leen fen rek da leen continuer leen di fen rek di fen rek di fen rek di fen ngeen ba daanu continuer di fen rek ngeen xool ba xam di ngeen jógaat ku taxawoon fen ba daanu di fen di fen di fen di nga jógaat doo mos a jóg <laughs> nii da ngeen di toroxee tottu ngeen di toroxee tot tot tot nii da ngeen nar a toroxee man <laughs> voilà donc euh, kon gars yi comme ni ko defee rek le combat continue euh, suñuy njiit yi am nañu raison peuple bi am nañu raison te léegi dinañ kontaan bu soobee yàlla léegi rek dinañ kontaan ils seront heureux parce que gars yi ñu ngi liggéey ñu ngi jaar yi ñu ngi liggéey ñu ngi ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan te incha allah les choses vont changer patience rek patience man daal loolu laay wax. du tee nag dañ ñaax gaay dañ ñaax gaay xamal leen ni ñii rey booy yi ñu tiire booy yi tiiñal leen taqal leen tëj leen toroxal sénégalais yi ñu ñun bëgg nañ bëggatuñ leen fi gis quoi te lekk suñu te lekk suñu salaire métti nañu trop quoi yow di lekk di yow di gis masal yor sañ passeport di ko doxantoo di dem di taxawaalu di yow di gis masal yi encaissé par mois non métti nañu trop dara amu ko ñoom ñëpp amuñu dara ñoom ay politiciens lañ ay politiciens amuñu léegi nag lu ñuy xaaree Sonko ak Diomaye mooy ñu jëlee ñu fa jëlee leen fa quoi nit mun a féex tuuti seen xol yi mun a sedd ko mais eh, fenkat yi buñ ñoo fi toog ba léegi ñoo fa toog ba léegi léegi nag loolu dara mënu fi changé bu fekkee ni corrompu yooyu ñoo nekk ci administration ba léegi lu fay changé nañ ñu changé ñi yàq quoi nañ ñu changé ñi doon yàq nañ ñu changé poson yi les poson de la république nañ ñu leen changé na ñu leen changé pour nit yi am tuuti taw tawféex ngir yàlla dimbale leen ñu jëlee fi poson gi bale leen ñu dese toxi yi on est fatigué là on est fatigué on souffre en silence le peuple souffre en silence voilà leen ñu ci dimbale posonu république bi ngeen jëlee leen fi ah, ah, sa sàcc yi sàcc yi criminels yi non du sàcc sax dafa criminels yi sa ñu ngi fi sàcc yi criminels yi reykatu nit yi fenkat yi ñu sosal sénégalais yi tëj leen c'est incroyable c'est incroyable léegi eh, lu fi des rek lu si des lu si des mooy bale bal nañ leen bale nañ leen fi bale waaw gaa yi ñu ngi fi ressource euh, ressources humaines yaa ngi fi gars yi am nañ xam-xam ñu ngi fi kon loo jox dañ koy gérer waaw loo leen jox dañ koy gérer fii on peut tout gérer am nañ compétence yi am nañ possibilité bi ba pare am nañ lu ñu ñoom lu ñu ñàkk xam nga moom mooy lan ah moom mooy ñun am nañ patriotisme ñoom loolu la ñu ñàkk nag te loolu mooy cerveau développement patriotisme nit nu am alal am alal am alal te te gëmul dara te amul amul lu mu jomb kooku noonu boo ko jiitalee tamit da lay toroxal yàlla sax wane na boppam bu mag eh, Mouhamed sallallahu alayhi wasallam di ñëw autodidacte la jàngul dañ ne ko iqra bismi rabbika jàngal sa boroom yaa ngi may dégg donc te kooku jàngul dara dara te moo gënoon jub ci askan wa mm-hmm. musul jàng moo gënoon jub ci askan wa loo ko jox la koy delloo jàngkat ya ñi fekkoon ñu jàpp lépp gëm nekk ay njiit yor ay xërëm xoolal yàlla na leen fa ñukk yàlla ñukk la fa yàq na kon gis ko la ku la dàq gën lay ëpp diplôme gën la nekk triant gën la nekk sàcc loolu la Sénégal mu sa wone Abdoulaye Wade kenn ëpp koy diplôme ba mu ñëwee dafa cartouché dafa yàqule dara defu ko fa dafa dafa redoubler rey sénégalais daw moom ak ay ñoñam Macky Sall ñëw ànd ak ay nit ñu naan ñii dañoo jàng ñii def nañ Sorbonne ak ñii def nañ ay le tal xolal tous loolu moo ñu tardel intellectuel ay bandi ay bandi salté ñoo ñu tardel vraiment ñun bëggatuñu ay borom CV te CV fen rek fen parce que waa ji la ne man bu ma nee ne la génnee naa fii eh, université bëri ICAM fan ngay dem di ko xool fan ngay dem di ko xool amu benn preuve yow yow sa bopp yow ma la wax bëri ICAM laa génne amoo benn preuve te defar diplôme yomb na aka yomb donc gis nga yooyu ay naxee mbaay la ay indil sa CV nangam nangam saway xamal ni waa yi gëm na boppam xamal ni waa ji patriote la xamal ni waa ji ku xeex bi yëpp dafa mus a xeex pour le peuple xamal ni waa ji c'est un incorruptible duñ ko corrompre man laay jiital ki yor jikko yenent bi ku yor ay valeur yor ay vertu am lu mu gëm kooku laay jiital kooku boo doon teg milliard du ko laal mais du ma jiital ay sàcc yor cinquante mille diplôme dem yokk ci benn CV da ngay gis kenn ko yor CV cinquante mooy benn waay bi am trente cinq yo CV bi am na boo xoolee waa ji boo ci génnee trente cinq bi mais waa ji cinq ans lay dese xanaa bu mu commencé am diplôme la commencé jàng. xanaa mais da gis da gis. yooyu seen koo xam ne da ngay xool âge bi 35 ans la am quoi nga xool diplôme yi la jox yëpp boo ko calculer normalement cursus boobu noonu kooku 45 ans la war wala 50 ans. <laughs> du dëgg quoi. du dëgg mais koy vérifier. moo ko vérifier fenn moo tax CV naxay mbaay la naxay mbaay kese la. Mm-hmm. <laughs> sa waa ji na gars dem jëli ay nit yu nit yu bëgg seen réew ay nit yu jub. doomu borom xaalis boo xam te ne ah, du jeex. waaye bërki démb bërki démb rek Sénégal ma cuucu fay joge na fii dem France ne am na doctorat ah génn fii yor gis gis ngeen ko ah mais alors mais gars yi di jënd ay diplôme gars yi di jënd ay diplôme gars yi di dem di jënd naa def naa soutenance fekk defuñu tous Sénégal rek loolu loolu boo ko doon li jëndi Sénégal ñu bëri fa bureau yi nga leen di fekk mënate leen yóbbu leen ndax dañoo fen yi CV Sénégal ngay dugg ak ñoom ay CV da xool ay nit yu jub ñoo xam ne ay nit yu gore yu am yu am ay valeur yu am lu ñu jomb lu ñu am lu ñu rus voilà ñoo xam ne dañuy taxaw mu naqari dañuy taxaw mu neex dañuy taxaw duñu trahir duñu tromper duñu manipuler duñu manigancer duñu ñu fen man ñooñu laa gëm tey Mouhamed sallallahu alayhi wasallam gis nga yàlla bu muy bu mu tegee Makka ak Madina ñu <laughs> waajooju la fa jël teg à l'âge de 40 ans te kooku moo daane lépp. mais dinañ lislaam bi mu ñëwee ba pare yaa bi ñu indee dinañ ah, ah, ah, bien. Sénégal nag ñoom dañoo dañoo jiitu ba pare jël règle yi même diine islam ba mu daawee dafa indi sariya teg donc règle day day day rédiger règle yi day yar. règle yi day yar bu kenn bu dañ dañ ne mbéj buy yar mbooloo ci benn lex lay dal. Hmm. loolu la wolof wax te loolu c'est très philosophique. dëkk ba daf lu leen neex nga génn kenn xool kenn ki dóor mbéj boo xam ne ñëpp xool nga expliqué lu dax nga mbéj ko ma kenn du ko defati kenn du ko ñoom ñëpp tot lañu def day yar ñeneen ñi ñu laalagul ah day yar ñi ñu laalagul waa ji di wax naan bu fekkee bu ma sa baay to ma boo ma tooñee dama dama lay dem ba sa baay ñuus ko bu ma ñuusee sa baay rek nga xam ne yow yow da sa baay dama laa jéggi dem ñuus sa baay donc di nga xam ne yow kon ah, jàngal naa la leçon boo xam ne soxlawul soxlawul coow lu bari mais loolu la mais vraiment man moom man bu ma gisee nit ñu mu indi CV ñu gi damay tiit dama ne oh, beneen sàcc ngi nii mhm. beneen sàcc bu doon CV la doon Ousmane Sonko du nekk premier ministre impôt impôt domaine la génnee mais amul benn école buy jàngale premier ministre amul amul école buy jàngale président quoi ah kon ñun ñu fi teg ñëpp ay genre nuñ leen jàppee moom mooy comme jaar-jaaru Mouhamed salaa salaam dañoo jël ay koo xam ne musul jaar ci administration maanaam liggéey ci gouvernement musul doon ministre musul doon maire musul doon dara ñu def ko président. yàlla ñu bëgg waaw loolu yàlla moo ñu bëgg a dimbale quoi te kooku. te kooku te kooku moo gën a tuuti diplôme ci ci ñu fa jot a jaar. te moo leen gën a jub moo leen gën a set moo leen gën a sell moo leen gën a ragal yàlla. waaw mais xoolal temps Léopold Sédar ba léegi ñu ngi doog am président. Ah, ah, ah. très bien te ki moo ci gën a tuuti diplôme. moo ci gën a tuuti diplôme moo ci gën a tuuti expérience. étatique musul taxaw ci état. mais tey moom la Sénégalais gën a am yaakaar ci ñi nga xam ne jàng nañ ko nekk ay ministre façon ministre bu ne. Abdoulaye de nekk na fi ay ministre nekk na ci gouvernement du jeex du xaaj ak Abdou Diouf Abdou Diouf même chose Abdou Diouf Senghor moo ko fi bàyyoon newoon na ci gouvernement kooku amoon na expérience dafa échoué. Abdoulaye Wade dem ci gouvernement dafa échoué. avant moo doon président Macky Sall nekk ci gouvernement bu mu ñëwee dafa échoué kii su nekk ci gouvernement bu mu ñëwee moom lañ gën a am yaakaar kon loolu rek war na mën a firndeel ni sénégalais dañu war a jël ñi ñu ñu combat ñu gëm mbir yi jël leen jiital leen ñu ci am déception buñ leen fi ne ñu ko nag naan dañuy jëli borom diplôme yi ñu trahir leen yàq seen kii waa répétition lay doon voilà voilà xam nga lu waral lool xam nga lu waral éducation lañ amul éducation de base ak doylu. Ah, waaw la rek sàcc. ndax booy ñëw booy ñëw di nekk président da ngay jub de commencement. Uh-huh. yi ñu koy xëy di ko jub sa buntu di nekk chaque jour saa boo yeewoo naan la mi ngi nii xoolal loolu. voilà dañoo baadoo la. loolu dëgg loolu maanaam mais xoolal la gis nga boy non yàlla. gëm yàlla moo jiitu lépp. ñu am président yu gëm yàlla. ñu ñu ay ñu ñu yàpp yàlla lañ am. le président Diomaye da di toog nii di waxtaan waxtu julli bu jotee fa la lay bàyyi ñi nekk Paris dem gis ko xam seede nañ ko te feneen ak feneen barke rasulaay ay nit yi ñëw audience mu summi dàllam dem jàpp ba set dem julli ji ñëw mais nit ki da ragal yàlla nit ki da ngay ragal yàlla boo ragalee yàlla rek jiit jiital yàlla waaye bu ñu la tegaloon fii milliard doo ko gis <laughs> léegi nag réew mi dañ ko war a defar réew mi dañ ko war a defar voilà ñu fi jaajëfaay ñu ngi ziar lépp jàmm na ngay tey ça va bien. <laughs> ah dégg nañ ah euh, pour euh, soutien bi. ah merci beaucoup merci beaucoup merci. on est ensemble jaajëf jaajëf Faye. Ah, <laughs> waaw mën nañ photo. waaw bisimilah. ok bisimilah. yee. nañu teg nañu teg nit yi nit yi bëgg seen réew rek. <laughs> nañu teg nit yi gëm seen réew. ñu ngi koy. jaajëf ñu ngi koy euh, apprécier. waaw merci beaucoup merci vraiment merci beaucoup. jaajëf merci pour tout. yes waay. respect bul wax dara jaajëf jaajëf ma ñëpp waay loolu mooy loolu mooy loolu bi. xam nga xam nga fi ñu njëkk a fi ñu njëkk bi sax du ñëpp ko mais il faut gars yi am culture boobu. culture am ngëm-ngëm man ngëm-ngëm laa gëm parce que man ngëm-ngëm moo ma moo ma bàyyi fii. Sénégal xëy na mun naa taxaw ne Sonko kese ci sa am na fu ñu tolloon ci xeex bi ku dul Sonko. ëpp ma proposition am na fu ñu tolloon ci xeex bi Sonko rek laa gëm ni à moom amul keneen ku ñu bëggoon corrompre que man amul ci tolluwaayu xeex bi mais ngëm-ngëm googu mu mës gëm moo ma bàyyi fii tey ngëm-ngëm gu Sonko gëmoon bañ corruption Macky Sall paroon pour def lu ne pour moom pour mu wàccee ay armam loolu moo ko may lii lañ ma doon tax di jéem a proposé proposé wuñ ko président bi toog fi tey Diomaye <laughs> amul proposition yooyu nekkul loon fi danger boo xam ne tey jii gars yi buggoon nañ ko éliminer gisoon nañu ni président la waroon doon ñu jëm ko éliminer naw nawul mais bu weesoo Sonko amul façon proposition bu dul proposition jinne boo xam ne de Macky Sall ah Marème Faye Sall de Marème Faye Sall ah Amadou Ba man aw ma ko barke alxuraanu karim ba léegi maa ngi fi doo gis mukk Macky Sall taxaw ne kii corrompe naa ko wala ay nitam yu ko wër ne kii ñun corrompre nañ ko ak lu ñuy rëy làmmiñ yëpp kenn yabul kenn du ñëw di la wax loolu waaw loolu ngor la te aw ma te aw ma ko aw ma ko nekkuma fii di jéem a xool bu ma ko jëloon tey kenn waxatuma un franc soxla ma ko ci ñoom constance Marème Faye pareil ba ci Amadou Ba bu muy Amadou Ba kan moo ko daane bu ñu waxee dëkk combat bi kan moo ko rajaxe à la dernière minute ba may génne ay jabaram ba may génne ay kii bu lu yàqal gu ma ko yàqal kan ma ko fi yàqal. à la dernière minute la la këppati bopp beeg baat bi. décrédibiliser ko te moom xam na ko ñëpp buñ ñu ko wër yëpp xam nañ ni kii moo booy bi moo la éliminé. te avant boobu wax naa ko fii tout le monde ne leen man Amadou Ba ñëw na ci man ñaari yoon discuter ak man pour ma dimbale ko benn bi pour xaalis beneen bi ma bañ xaalis bi beneen bi mu ñëw ne léegi dimbale ma bàyyi ma sax même boo ma yàqalu bu ma yàqal quoi man maa ko te am na ñoo xam ne bu ñu toogoon fu ma toog warax nañ alal gi ba dem seen yoon parce que ñoom pour ñoom am na ñoo xam dañuy wax ne moo laa jëlal xaalis bi nga lekk ko yaa ko moom non man newuma ci loolu xaalis boobu moomu ma ko mm. askan wee ko moom man góoma loolu lekkal xaalis bi yaa ko moom moomu ma ko askan wee ko moom. voilà xam nga borom dara jeeg. borom man laa gëm. borom sëriñ yéen a xeetu sëriñ yëpp li leen daaneel lan la. Hmm. mooy alal ji nga gàntu mënuñu koo gàntu ñoom. très bien. voilà alal lañ leen daaneel. man respect boobu laa am ba léegi ci ñoom. a APR doo gis kenn ku dugg sama zone. tey bu ma lekkoon seen un franc. tey bu ma lekkoon seen un franc kon ba léegi ñu ngi taxaw. billaay preuve dóor fekk kon noppi bu yàgg. Hmm. mais damay saaga seen nday ba seen bàmmeelu nday ñu muut la ñuy def jonkon seen bàmmeelu nday di saaga seen nday ñu ne muut ay bu ma leen lekkaloon un franc moo tax booy wét gore ko gore diiñ diiñ koo taxawal siggi man amul kuy dox Sénégal daa taxaw moom sëgg j'ai été digne bu moment bu ñëpp ñu bëri sëggee j'ai été digne bu ñu jàppee samay soldats yëpp dugal ci kaso bi ma des fi man kase jàmmaarloog ñoom mel ni junni nit multiplier wu junni nit yàqal leen fépp lu ne jiñ nañ ma ko booy fu ne topp nañ ma fa ba fii ay nit wër nañ fii xoolal loo xam ne man tàppetum tàppet du ma tàppet du may wax nit yi dem nañ fu ne di laaj fan laa dëkk nit yi dem nañ ba euh, benn GP buy dajale kii sénégalais ñëw ba foofu diw at mais Mollah est-ce que day ñëw fii laa fan la gars yi di ma woo naan ma mais am na ñu ñëw fii ñu ñu yónni ñi ngi ñi ngi lay wër mus naa dugg sa man néeg tëju si laaj ci mbedd yi laa koy defee parce que man man sa waay dee sama ak sama as pour askan moo ma gën a dee ci bopp bi metti dee ci naan para euh, paracétamol man bugguma dee ci paracétamol amul ma dama bugg di xeexal sénégalais yi ci mbedd bañ na ma këbaj bopp ak baat moom wóor man ci jihaad laa dee. naa la naa la dénk waaw sénégalais ñun man bokk sama dama part personnel kenn du seetaan non non mënul ne sax. Seydina Mohamed wallaay. xam nga sëñ Cheikh Fall dafa wax benn wax ba sëñ Cheikh Fall Baye mhm. ngeen bëgg dara jafe mhm. kese waaw mii nga doon xeexal démb ñëpp teg seen bët. su la joxul sa wàcc waay sax nit ñi dem bàyyi ko. <laughs> la azim loolu mooy dëgg sax. muy métti daw <laughs> ñu ben yoon. te raag bi tar na te dafa yàgg deux mille vingt et la bu ñuy tiire gaaya laa yanu affaire Adji Sarr ba di ko ci teg tàmbur batan mu tàng jër réew mi nit boy ma taxaw. waaw mais xoolal suñu bët. live and direct dix mille taxaw tak tak tak ba ñu dem ñu naan booy yor nañ vidéo yor nañ kii ma pressé du faux pour avoir du vrai vuru faraj dugg xool si génne na leen bum on enchaîne on continue ba tey. xoolal suñu màgg <laughs> xeex xeex bi moom. ku ñu waxoon Sonko mooy génn nekk président. barke Rasulaay ba ci biir kaso bi mu dugg ci kaso bi gaa yi fàtte. mu dugg ci kaso bi gaa naan day bokkam du bokk. <laughs> ki boo demee ne Sonko ñoo la génne fii duñ tudd ñett te tudduñu ma duñu tudd ñett te tudduñu ma. wallahi billahi wa taala aha duñ tudd ñett te tudduñu ma ci. ci ñu bokkoon ci processus bi dugg ci biir di xeex ba ci bu Sonko nekkee ci biir. ba bu buñ koy indi vélo bi vélo bi ba buñ koy indi tapi bi ba bu muy génn sol blouson du football ak doomam yi ba buñ koy indil kool bi di ko ci dugalal ñetti numéro na ko yii nga mun a woo lépp maa ngi taxaw lépp maa ngi taxaw. histoire boobu dama ko damay gëmm di ko réciter mun naa ci bind livre l'affaire Adji Sarr ba fu mu mujjee ba ñoom Sonko jour bi ñuy génn mun naa ci teg livre kenn gënu ma jege loolu te maa ngi nii ba léegi toog di ko maintain du ma ministre du ma député du ma maire du ma mais xoolal la xam lan laa am xëy na lu lu ñu bëri amul mooy respect bi am naa ko ci Sonko am naa ko ci le président Diomaye loolu moom cërale nañ ma ko doo dégg mukk ñu génn di wax ci man quoi que ce soit doo leen dégg mukk te fu ñu amee opportunité wan nañ ma cër Paris diisoon na xatoon na metti woon na président Diomaye gisuma sama frère ma bokkoon ndey ak baay kese moo ko ci gis ñaari yoon te du ministre du député du maire lu mu jëriñoo mais sama tur sama tur la jëriñoo bokkul ci liste amuloon audience fexe na ba kurti kurti ba dugg bu mu duggee bu mu ne président Diomaye loxo la ko téye moxoñ loxo bi téye ko cinq minutes di wax ak moom ba ñëpp tiit parce que moo laa bu mu ci dégg mu téye ko nem nemmeeku ko wax expliqué lép ba mu paree man mii laa la wax naa ko Sénégal message na ma te jour fête de la musique la félicité ma ba laaj ma album fondamental numéro 2 ñu toog waxtaan ci ñu waxtaan ci parce que dama ko fàtte woon te loolu maa ko waxoon te dige bor la kon kooku jox na la cër malgré que président de la république mais fàttaliku ne démb ak bërki démb bu mu doonul daara ma joxoon ko cëru nit cëru cëru nit laa ko joxoon moo tax fu mu ma woo damay jël fu mu waxee ak man damay jël te ba léegi loolu lañ seq donc man ak moom ay ay doomu ndey lañ seq gaañoo gaañoo ñu jël ko interview dëkk bi xat loolu amul activiste walla rapport bu mu tudd ci biir mbir yi bu nekk Sénégal histoire am yëpp bu mu waxee mu <laughs> moo laa fa tudd kon kooku bokk naa ci histoire am buy wax histoire am wax na histoire Pastef wax na histoire école am wax histoire yaayam wax na histoire yëpp mais histoire bi yëpp. mu ne Mola Morgan. Mola Morgan xaaral ma jox leen benn anecdote génn lool saadaar la. pour wane ni Mola dafa bokk ci sama story dafa bokk ci sama life. parce que bu muy tardé tardé tar tardé kenn xamul man maa man la doon woo def ma gaayen di ma woo chaque dix huit heures. et pourtant noonu laa ko doon jëlee sama temps te pourtant ku ma ne woon ku ma ne woon kii dina ma sa doon président donc man damay gëm nit ci bu amul dara man du ma opportuniste. lu ma lay wax ni 2016 2017 ah xam nga loolu yàgg na léegi man boobu laa ko doon déglu di ko jox attention muy wax ak man di waxtaan ak man di échanger ma koy jox ay sound mu may jox ay sound di ma jox ay affaires mu wax naa ne le président Diomaye bi ne newoon na manager manager groupe groupe bu rap séeréer nekk njaga ñaaw muy jël di ma yónnee seen son naa ma mais ma laa déglu fi maa ko waay waaye mais joo ki ki ñi aay ñu waay ñu tooñante jo ñi aay ñu non ba li nga wax moo laa donc ñooñu loolu lañ sëkk moo tax bu mu déggee ni sama rakk ñëw na fa mu xaj mu ne xajal leen ko mu dugg mu dugg te amul audience mu toog ak moom jël moom temps waxtaan kaf ree ba pare joxaat ko rendez-vous ne ko suba ñëwaatal sama rakk bi ba jour bu président Diomaye di départ ñëwaat na encore <laughs> moom moo ko fa am <laughs> voilà parce que waaw parce que grand frère am mu ngi jëriñoo barke grand frère am te grand frère moo ko fa liggéey moo tax fii wét goro wéttalu ko goro booy dëggu jub nekk ci combat bi gëm ko kese booy wéet sax deyal ci dëgg man loolu laa gëm man loolu kese laa gëm nag gisuma daraay àdduna lu luqi samay bët ba mu war a taxaw a ancien spermatozoïde futur cadavre di la fen nii parce que dala neex quoi fen di la fen mais mais yow yaa may jox lekk wala naan wala yaa yor sama dund wala yaa may rey wala yow yaa yor samay tiyaaba yow nga toog ni ay tànk loxo nopp moo war la fen quoi pour pour te faire plaisir daal yow koo xam ne yow bu buy metti xaw ma la loolu moo amoon bu njëkk non man loolu amul gëm nit nit taxaw ni benn tànk loxo nopp bu taxaw ni nga war ko fen ko non jomaay kiyante lañ fekk jomaay <laughs> di fen nii quoi di fen di fen culture fen quoi fen raxaw di fen nii nii parce que dañ ko bëgg a <laughs> man day yàlla yàlla ma yàlla musal ci xaw ma lan kan la yàlla bindagum ma ko war a ragal ba jàkkaarloo mu di ko fen pour rek lu ko neex quoi après mu dem nalawi man ma dese samay bàkkaar ndax fen di ko ma fen quoi pour pour neexal waaw waaw kulul xaq walal kaanu mu ran ah, waxal dëgg donte dañuy faat dañ lay faat ba dañuy tàggale sa bopp ak sa baat waxal dëgg <laughs> non fen bi dafa grave Sénégal. xaalis moo moo moo yàq dëkk. Ah, waaw waaw loolu la de xaalis moo yàq dëkk. moo tax ma ne wét gore wétali ko gore booy dee sax deyal ci dëkk deyal ci dëkk rek deyal ci dëkk point. ñi war a faj daal bu ñu feebaree moom. ah imaam yi ngay wax nii ak ñoom ñoo gën a feebar ah, kay réew dafa jaxasoo de moo tax waaye moo tax yàlla di yónni ay xut bu samaan mel ni sama genre gi ñu leen koy dóor muy metti ci ñoom seen xol di dagg ñu xolal waaye si daa yéeme de day indi borom dara ji yor ngaram grand bubu ñuy wax gars yi tëj seen nopp mu dem indi ay boo xam ni ci buuju bi ci buuj da leen a buuju ci mbalit bi la leen jëlee booy tàng jër mënu luñ leen dara boole ngëm-ngëm nag di fadd di di waaye yow man man bu mu ay wax keroog moo mooy daane da jógewu ma fi. xam nga xamal ma neex si combat. <laughs> mooy waaw wallaay intérêt Sénégal kese. booy xeex. jiital intérêt Sénégal. kenn du la tiital. faalewoo nit buy dox doo gis nit. mais booy xeex ndax sa ay sama tur ay non xaaral kii nee na ma yow bàyyil may ragal parce que waxoo sama tur laay sàmm <laughs> mais man damaa jël sama bopp jox ko Sénégal addiya existé tuma kon munoo saagu ko existé dul dama damaa jël sama bopp jox ko Sénégal addiya point munoo wax lu ma saf munoo wax lu may wàcce munoo wax lu ma noppiloo hi doo dama dëgër bopp de cuma barke alxuraan doom aadama doxul Sénégal ku ku am gémmiñam lu ci mun a génn lu mu mun a wàññi seconde hi ak maa dëgër boppu te wawle non ku ko xamoon noonu bu ko xamoon day noppaliku noonu yu ci man yëpp a noppaliku ci parce que de xoola deux mille vingt et un laa ko déclenché ñu ban année. deux mille vingt et un ba deux mille vingt quatre mos ngeen ma gis ma taxaw. daw ay <laughs> daw ma dellu ma ginnaaw kon kooku daw ma arrière ma moo tax ku yaakaar ni am nga lu la yàlla may. loo mu mën a wàññee wala loo mu mën a arrière looyee yaa ngi nax sa yaay de. <laughs> coow bomb bi bu explosé damay taxaw. ndam rek ndam rek ndam kese. Sénégalais da ngeen a a gën a bëgg Sénégal.